mbokki patriotes yi euh, militants ak sympathisants ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare euh, di waxtaan ak yéen tey ci benn tomb boo xam ne lu am solo la ci bépp kuréel mooy lu jëm ci dajale ay euh, doole ci wàllu alal yoo xam ne moo ñu war a yombalal liggéey bi yéen ñëpp xam ngeen ni Pastef dafa di parti boo xam ne. dafa am lu mu sas boppam li mu sas boppam mooy du dugg ci dara loo xam ne lu lënt la pour mën faa am la muy soxla pour liggéey pour fonctionner moo tax duñu nangu genn financement goo xam ne dafa jóge bitim réew ci ay wala dafa jóge ci ay lobby moo xam lobby biir dëkk bi wala biti dëkk bi wala dafa dugge ci loo xam ne dalul xel ci yoo xam ne daal loo ci nangu rek yoon mun na dal sa kaw ndax dëppowul ak charte réew mi wala boo ko nangoo it ëllëg mun na laa gàllankoor ndax bu yàlla defoon réew mi tegu suñu loxo ñooñu dinañu am euh, moyen boo xam ne dina doon moyen de pression ci ñun ba nga xam ne dañuy bëgg ñuy ñuy jàllale seeni bëgg-bëgg ñoom indépendance boo gis nag dafa am un coût loo gis rek dafa am lu mu jar boo nee nag damaa bëgg moom sama bopp faw rek nga nangu wag say say say say yére nangu coono tuuti ba nga xam ne euh, di nga mënal sa bopp loolu tax Pastef bi mu sosoo ba léegi ci ay militant am ak ci ay sympathisant am ci ñu am nationalité sénégalaise moo xam biir réew mi la ñu nekk wala bitim réew waaye nañu am nationalité sénégalaise ci ñooñu rek lañu ñu mus a yaakaar pour di dajale li nga xam ne moo ñuy permettre ñu liggéey li tax nag loolu am solo ci jamono jii mooy dañoo def programme bu am solo muy programme mu nemmeeku tuur mooy dem dajeek Sénégalais yi fekk leen ci fa dëkk fekk leen ci seen environnement toog saafonteek ñoom waxtaan ak ñoom xamanteek ñoom weccanteek ñoom déglu leen ci seeni mbébét déglu leen ci seeni jafe-jafe waaye wax leen it ñun lan mooy suñu yéene ci réew mi ak naka lañ ko bëgg a doxalee programme boobu door nañ ko ay fan ci gannaaw gën saa gudd ñaari weer ci gannaaw yéen ñëpp ngeen gis ni nag ndekete programme boobu yéex nañ koo sumb ndax fépp fu ñu dem sénégalais dalal nañu dal boo xam ne da ngay xam nit ñii ñu ñu doon xaar ñii yàkkamti woon nañ ñu ñii bëggoon nañu gisante ak ñun xamante ñun waaye waxtaan ak ñun. ñu gënoon ci nem tàmm nag taamu nag dëkku kaw gi lu tax parce que dañoo jàpp ni boo seetee suñuy résultat ci élection yu weesu yëpp dafa mel ni dëkku taax yi su mokkulit am nañ fi lu rëy ñu nekkoon nañu dem ci dëkku kaw gi ndax ñaare foofu la yenn yi des ba léegi ñu ne nañ dem waxtaan ak ñoom ku wax nag loolu xam ni am na lu mu ànd ak waaye réussit bii nemmeeku tuur bi am ci weer yu njëkk yi moo tiital ñi ñu jàmmarloog moo tiital nguuru Macky Sall ba gis ngeen ni lu ne ñu ngi koy def pour gàllankoor nemmeeku tuur boobu te bi ci gën a fës mooy utilise waat justice pour xool nu ñuy galgale Ousmane Sonko ba dootul tal dem ci àll bi defi nemmeeku tuur ci jamono joo xam ne Macky Sall moom ma ngay jël ay xaalis réew mi bu dul jeex di def ay nemmeeku ay euh, tàggatoo tuuram comme ni ko gars yi waxee waaye daat koy dëxëñ ci kaw nee na ay tournée économique ñu xam ñépp jubluwaay bi mooy pré-campagne loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg yàgg naa wax ni mu soobee yàlla élection 2024 bi gannaaw yàlla kenn mënuñu ci tere dem te am nañu njort bu rafet ni yàlla bu bu dee Sénégal li ñuy wax mi ngi fi dinañu jàppale ba jëlee réew mi ci loxo ñi fi nekk mais ñu ñu jëlaat suñu réew téyewaat ko ak suñu bopp ak suñuy xalaatu bopp am ci suñu indépendance bu doy pour jëlee fii lépp li nga xam ne tey sénégalais ngi koy jooytu loolu moo tax nemeeku tur bi am solo ndax bu jaaree ni ni mu war a jaare bu doxee fi ni mu war a doxee li leer ba leer mooy dina teggi lu bëree bëri bëri ci campagne présidentielle u 2024 incha allah moo tax ñuy ñaaxaat ñëpp ci kenn ku nekk ci li nga mën dañoo yàgg wax ni lu ñu bëri bokk kenn ku nekk boo defee as tuut ñu dajale ko day doon lu bëree bëree bëri te kenn du ci loru moo tax ñu ne kenn ku nekk ci li mu mën na làmb ci poosam daa di contribuer ci nemmeeku tuur bi ñuy lancer benn journée ci dimanche bii di ñëw le 8 muy journée boo xam ne journée rek nu ñuy def ba dajale ay moyens la yu am solo yu ñu war a permettre ñu continuer ñu liggéey bi ñu gis ni am na ñu ko door déjà ndax barki démb rek ñu may wax fu mel ni Italie suma ma am na lu am solo loo xam ne jot nañ ko cee def te balaa loolu gis nañu dëkk yu bëri surtout nag ci suñu mbokk diaspora bi ñu leen di jaajëfal une fois de plus di leen félicité di leen remercier ci turu peuple sénégalais bi yëpp gis nañu bërëb yu bëri ci diaspora bi organiser ay diine yoo xam ne ay levée de fonds la woon ñu ne bii nag dañ koy dajale muy benn journée nationale du doon bu jiitu peut-être waaye ñu koy dajale organisateurs yi nañ del dellu si wax leen nu muy doxee ñu ciy woo sénégalais yëpp xeebuñu ci kenn ku ne ci biir réew mi ku ne ci bitim réew kenn ku ne bul xeeb lañ ci am loo mën rek nga contribuer ko ci parce que dinañu yokk doole ba li ñu war a def ci dugg ci àll bi dugg ci ruq-ruqaan yi dugg ci dëkk yu gën a sori dem wax ak sénégalais ñu mën koo def ci ni mu gën a rafetee am na nag site internet boo xam ne jëmmal nañ ko ngeen gis muy jaar noonu ci suuf ecran bi kenn ku nekk ñu ngi lay ñaax bu ñu lancé waatee programme bi rek déjà mun nga ci xool li jot a weesu ci nemmeeku tuur muy étape yu am solo diggante département de Mbour ak département de waaye di nga mën a di suivre foofu nemmeeku tour bi bés bu nekk di gis étape bi ñuy def di gis suñu jaxasoog sénégalais yi di gis yaakaar gi sénégalais am ci li ñu sumb te loolu am na ci solo kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen fàttali daal euh, euh, bésu dimanche bi le 8 janvier 2023 ñëpp nañu mobiliser wu pour journée boobu réussir ñu ngi leen di gërëm asalaamualeykum